Ah, parce que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que nous mm. reportons une élection présidentielle. Et Madiap, à mon humble avis, euh, que nous savons que nous reporter reporté l'élection, nous donne tout mal des institutions qui xamné que l'élection, si nous avons, nous avons élection bu ont ñoom ñooy les résultats définitifs pour wax ne diw fal ou ko wala diw faluñu ko kon nous, bu avons ay suspicions de corruption de si ñoom loolu dafay nekk loo xam ne bon lu grave, la certes mais euh, comme pour man dafa yemoon ci ay suspicion les gens apparemment ils n'avaient peut-être pas euh, les preuves de leur accusation euh, je ne voyais pas, moi, la pertinence du report de l'élection présidentielle. Je ne voyais pas ça. Hmm. Et la preuve, ce qui indi le jur que élection peut-être motif le président de l'option pour reporter ko yooyu yëpp maanaam mu dans la mesure où bi mu une décision euh, le conseil constitutionnel le juge des élections dañu remettre en cause loolu dès le siwaat ne na ne élection yi dañ ko tenir à date échue et non pas euh, mois bi nga xam Mom moom le mois de juin avec le dialogue euh, bi nga dialogue de la dernière heure bi nga xam donc defoon nañ ko donc loolu yëpp indi ay problème ni aw ni ñi aw le finalement le conseil constitutionnel joxewaat beneen date bo xamné bi mën en vérité ses prérogatives parce que le corps électoral est, convoqué par le président de la République ça c'est une c'est une en fait c'est une décision bu nga xamné c'est euh, dévolu au président de la République donc ñom biñ ko fait. après qu'est-ce qui s'est passé nous avons vu que finalement le président a pris une autre date différente de celle qui a été prise par le Conseil constitutionnel donc le 24 du président jël finalement mon date donc le conseil pour se conformer membres par rapport à li c'est-à-dire que les élections se tiennent mu def communiquer pour voir ne euh, il est euh, conformé sur la nouvelle date prise par le chef de l'État c'est-à-dire qu'il mu surtout en matière de droit il moom donc euh, déjà indil nañu problème parce que problème bi ñu indil on a vu que même euh, même nombre de jours yi nga xam ne moom la nit ñi wara am bu def élection c'est-à-dire les 21 jours pour mën campagne malheureusement finalement amatuñ ko dañu mujjé adapté wu si ben temps bu gatt jours pour faire campagne alors que tout ça a été réglementé par le code électoral et le conseil constitutionnel c'est-à-dire que c'est des lois donc yo nga xamné kon euh, mënoo susciter une loi par un décret. Mm. Euh, par euh, tu vois. Mm. yoy dafa c'est des choses yo xamné dafa nek ay sew sew yo nga xam mm. en droit euh, nit ñi dañ ci wara baye xel. surtout nos gouvernants donc depuis bobak légui ñu gis tout ce qui s'est passé et finalement. Nous avons cette élection là war ko mm. Mm. ce qu'on appelle les recalés yi aussi ils avaient jugé nécessaire que le processus soit biaisé mm. parce que nous avons c'est recalés. pourquoi parce que une clé USB que nous ko lire Nous avons dañ leen recalé pourquoi parce que bon euh, voilà avons ñii parce que finalement il y avait même du hasard parce que nous avons eu des tirages ça veut dire que c'est le hasard. Hmm. donc yow y a un homme avec une femme ak partem organisé un maillage national nekk hmm. kilifa. Hmm. mais nous jël ko mu nekk euh, numéro bu nga xam ne bu si def euh, avec les doublons et tout ça.

mais gis nga ne euh, bo xolé tay ni élection yi demee di nga gis né ñi kat euh, finalement nit ñi. Hmm. dinañ posé wu des questions hmm. né ñi naka lañ def ba am parrainage ba jall lolu yëpp nak lolu moko indi. Hmm. moi j'ai dit que ne bu amé tirage fenn c'est le hasard. donc il va falloir japp nga ni euh, tout ci début bi ba tey. Mhm. leen leen biaisé li nga xam ne ce processus. absolument lolu la depuis le début le biaisé wu effectivement bañu tollu fi nga xamné tay situation bi xew ni euh, donc ñi do nga xamné ne dañ bëggoon ñu revoiraat affaire yi pour ñi doon wax la pertinence du report par rapport ak loolu am na ñu ko doon mais man ma jàpp ne mm. euh, report élection warul woon am mais comme am na <laughs> Maintenant, il faut mesurer les, les, conséquences et mm. prendre les responsabilités mm. qu'il fallait. Et c'est dans ce sens-là que nous avons un contexte. Nous avons une élection qui est mm. en tout état de cause. Le <laughs> président Limbogon a parce que finalement, dès le soir, donc moins d'un mois, on organisé l'élection pour reporter, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ce qui est indi, faut tenir non seulement l'image de marque du Sénégal sur le plan de la démocratie parce que le Sénégal quand même dañ ko euh, considéré comme une vitrine démocratique en Afrique te dina tache noire bu nga mm. euh, euh, vraiment cette démocratie sénégalaise là et ah. que maintenant situation baa ngi noonu certes yàlla dimbali nañu aussi par le génie politique sénégalais que nous acceptons li nga xam pour sauver en fait cette année électorale ba nous ñu organiser pour que euh, mu ait un vide juridique mu bañ des am vacances du pouvoir mu parce qu'en principe légalement le président de la République le 2 avril après le 2 avril il n'est plus président de la République du Sénégal donc il y dafa bokk ci éléments yu nga en ne dafay motax ma japp né élection yi dal en tout cas c'est des élections inédites hmm. euh, dans l'histoire politique du Sénégal alors euh, là ñuy euh, ñëw sama naataango si laaji tontu yi hmm. mais su ma la déggee wala comme suma ma la comprendre élection il dafa manqué de qualité enfin plus ou moins mën nañu wax manqué de qualité bon euh, peut-être pas du point de vue des hommes yi nga xamné ñom ñom parce que. en mm. tout état de cause. Mm. quand même ils ont un vécu politique. Mm. c'est-à-dire il y a le parti au pouvoir il y a l'opposition. Il y a eu Askanui, aujourd'hui symbolisé par et président, mm. il y a Khalifa Ababa Karsal, il y a Idriss Seck, il y a Le Pur. Mm. Donc, euh, nous, et tant d'autres éléments, nous avons un travail, nous avons Alassane, mm. euh, voilà, Malik Gakou, c'est des figures de proue, en tout cas de la vie politique du Sénégal. Donc, nous avons peut-être amul. Qui euh, boobu quoi maanaam sur la représentativité des leaders yi nga xam ne ñooy concourir au suffrage universel mais en tout état de cause li nga xamné ne tax ñu mëna doot baram ci élection yi c'est par rapport ak li ma énuméré sank mu jaar fi té lu nga xamné ne waruloon am ba indi ñu reporter l'élection présidentielle. Mm. allez-y euh, ñu lay déglu bu baax baax par moi. Euh, Fallou maa ngi lay nuyu di du téléspectateurs yi di nuyu suñu invité bi doyen Abdou Aziz Seck. Mm. Euh, fi may fi ma li ma koy laaj rek mooy est-ce que jàppoo ni élection yi euh, comme président dafa jëloon ne dafa koy reporter pour ba quinze décembre yow pour yow sa xalaat jàppoo pour ñu reporter ba dat boobu noonu moo gënoon pour ñu mën ko préparer normalement ndax ñu am temps temps maximum temps campagne bi euh, ba xam si ñi nga xam si waroon nañoo mën a bokk comme si comme ni mu ko waxee woon euh, keroog euh, interview ak BBC mu ne suñ bàyyi woon ba ba ma ba rapport boobu noonu kon Ousmane Sonko dina mën a bokk ay Karim Wade dina mën a bokk ma yaakaar ne yow jàpp nga ne loolu noonu moo gënoon ci ci Sénégal. waaw en fait xam nga man damay wax ne dès l'instant que président reporté woon na élection bi ba pare. ñi waa conseil constitutionnel di wutaat beneen date ak di jàppaat ñoom aussi wax naa ne am na lu nga xam ne sax du seen prérogative ñu def ko man li ma jàppoon mooy euh, comme coow li bari woon na ba mu jar président woote dialogue bien que ñu bari ñi nga xam ne ñooy les candidats dañu boycotté woon cette Euh, cette, comment dirais-je, euh, ce dialogue-là. Pourquoi Parce que, bon, ils jugeaient que nous la pertinence de ce dialogue. Par exemple, si je prends le cas de Khalifa Ababakar Sal, c'est par le dialogue qu'il a été réhabilité pour revenir, pour pouvoir être dans le jeu politique. Pour nous permettre que nous soyons candidat. C'est par le dialogue que les règles sont Parce qu'en fait, moi personnellement, je fais, dans mon boc, si nous avons, nous avons, nous euh, le dialogue dafa bokk ci la vie politique dafa bokk ci li taral suñu démocratie c'est-à-dire li nga xamné ne ñun ñoko ko bokk parce que en vérité c'est le président de la République qui a été élu mom Macky Sall ni muy doxale réew mi am dialogue ak ñak dialogue moo koy doxal gaay yi bu ñu leen woowee ñu wara ñew dialogue ñewuñu président bu jëlee ay décisions ces décisions là après day appliqué wu kaw kon dialogue bi en tout état de cause dafa war di loi loo pour man dans une démocratie dafa war quelque chose de pérenne raison pour laquelle vous voyez que le euh, dialogue bi ñuy njëkk a def gis ngeen amon na jeexital ci élection locale mm. parce pourquoi parce que bu vous bi euh, boo daan dem élection da ngay dem élection vous euh, ñu ñu ñu les conseils conseillers war le maire. Mm. ñu gis ne par exemple boo ñëwee ci benn gox ñu gis ne ah sëñ Fallou dey askan wi moom lañ bëgg. parce que moy nek ci seeni problème mo leen di xéxal mo leen di tofal sonn lu ne mu koy daj. ñepp maase ne moom la ñuy voteel pour mu gagner nek maire. mais buñu voter ba paré légui nak fekk par exemple ñu né ah Abdou Aziz mom peut-être il a beaucoup plus de moyens il parvient dem ci conseil yi. mu jënd 10 conseils yu Massamba jël 3 conseils yu ma demba finalement jël maire bi ci loxoy seigne fallu mi nga xamné mom la askan bi peut-être bëggoon mu nek ben, détournement des votes des des des des concitoyens mais lolu dialogue bi indi na ba nga xamné de telle sorte que tey bu ñuy def élection maire ki nga xamné mo jité liste bi titulaire né candidat au maire bi bu ñu faloo kii jiite woon mooy nekk maire kon de lolu day wone né amna une avancée démocratique buy permettre que mu am ben transparence te le vote de dootu ko mën détourné parce que man bu may dem ci ji di vote ji dina xamné man seigne Fallou la bëgg mu nekk maire kon bu bu gañee mooy nekk maire par la force. Mm. donc lolu c'est une avancée démocratique. ma jàpp donc euh, Sénégal élection yi dañ ko war di sécuriser d'une façon bu nga xamné moy mooy nit ñi di ñëw di waxtané li ñu war a ba am des consensus forts par rapport aux élections te li muy jur lolu moy day am possibilité que buñ démé ci élection mu nek des élections apaisées transparentes inclusives et démocratiques et que généralement je termine par là du am manam ay contestation post-électorale yo xamné ne mën na indi réew mi ci jafa jafe hmm. lolu moy tax le dialogue am solo dans ce sens mais format est-ce que pose le problème parce que candidat ñom ñoom dañoo ne le candidat dem waxtaan tan bi mais prise bëgg a boole ñëpp woole autour d'une même table ben oui, vous savez, lolo aussi, xam nga, euh, moi je comprends très bien hein, la ñi nga xamné ñoo né candidats yi nga xamné ñom ñoo wara dem ci élection bi effectivement ñu mënon nañ dem. Mm. peut-être waxtaan ak président ñu tok waxtaan ak yi mais xam nga boo wootee dialogue pour waxtaan. Mm. généralement da ngay fexe lu mu gëna large possible gën pour mu am benn connotation bu nga xamné ne dina légitimer les décisions yi nga xamné mom lay président di jël foofu malheureusement pour lui je peux dire président parce que décision est non, faut vous dire que yëpp yóbbu ko ko le conseil constitutionnel doit invalider et proposer naine. mais ma que si bu fekkonte ne peut-être du 2 juin boobu lañ doon dem mais y am aussi ay yeneen conséquences juridiques yu nga xam ne tamit dina ci permettre ñi nga xamné muy Karim Wade muy Ousmane Sonko et d'autres peut-être mën nañ leen delloo siwaat ci jeu c'est toujours possible mais Boba aussi à partir du 2 avril président de la république a la légitimité pour permettre de continuer diriger Réumi. aussi c'est un élément de fait mm. soit le président bu heure est su dérouler au mois de juin il est obligé par exemple de démissionner Pour démissionner légui, de am ce qu'on appelle <coughs> Madame Ben vide wala Ben du pouvoir bu nga démissionner avant le 2 en ce moment là c'est le président de l'Assemblée nationale qui pour pouvoir bi pour organiser des élections qui au moins 90 euh, jours 60 à 90 jours même 3 mois maximum pour organiser élections mais bu président ba 2 avril mu dem élection mais ce vide juridique là doit pratiquement loolu ce sera une première do xam naka lañ koy qualifier kan moy téye donc pouvoir bi ba léegi xam nga yoy yeb c'était des éléments yo xam ne waroon nañ ci xalaat réfléchir ci avant ñuy def euh, ce ce ce report là ak li conséquences yi mu jur yeb quoi loolu. mais doyen am am ñu jàppoon ne comme Macky Sall dialogue bi mu woote. Mhm. parce que am ñu jàpp ne dialogue bi amul sens. parce que ndax euh, mi ngi jàll ki nga xam se ne moo di principal adversaire am di di di Ousmane Sonko nekk ci kaso bi en même temps ñu jàppoon ne comme buy woote dialogue comme ni ñu ko waxee ni ko waxee sànq ñi nga xam se ne les candidats concernés ñoom la waroon a woo. nga xam si waxtaan ceeg ñoom avant que ñeneen ñi euh, comme société civile bi ak euh, ñeneen ñi di ci di ci di ci di ci door a mën a am di ci door a mën a àddu Oui, en fait, c'est vrai, c'est possible, hein, mais, mais comme c'est le jeu qui est faussé dès le départ. Mm. C'était un peu difficile. Et moi, je comprenais aussi euh, l'inquiétude des l'inquiétude des, comment dirais des recalés, non pas des recalés, mais des candidats qui ont été choisis. Mm. Nous avons vraiment le temps de reprendre qui. Parce mm. qu'en fait, si par exemple on reprenait le processus électoral. nous hmm. war que, demaat ndax dañuy fait parrainage ou pas si avons fait des parrainage supposons y avons des candidats qui ont xam ne mais ils peuvent se retrouver après dans le contexte contexte où xam ne ñoom duñ parrainage. c'était possible bu on a def là là tu crées un imbroglio qui xam ne bii ci réew mi du xam donc moo euh, je comprends ñi nga xamné ñom mm. conserver organiser sans pour autant problème mm. mm. malheureusement c'est arrivé on ne peut que constater et voir. mais en tout état de cause amna ay regrets y a ay tâche noire par rapport à la vitrine démocratique du Sénégal mais néanmoins on va vers des élections et lolu c'est acté mm. que les Sénégalais vont choisir leur leur leur mm. candidat mm. le 24 demain dimanche Inch'Allah. <laughs> mais maintenant euh, les li xew ba Sénégalais ils sont conscients et je sais qu'ils savent voter les Sénégal parce que man damay wax souvent que les Sénégalais ils ne vote duñ ko un peu partout dañuy jël kenn ciblé ne mom lañuy voter jëlaat keneen cible teg si jëlaat keneen cible teg si maanaam seen i voix dafa am ñu ñu koy ñu ñu koy jox quoi te dañ koy catégoriser quoi. Mm. et ça moi j'ai vu cette expérience là depuis très très longtemps. Mm. gis naa ne Sénégal noonu lay fonctionner. et que aujourd'hui aussi jàpp naa ne si si même dynamique boobu lañ nekk pour euh, espérons que demain mu nekk ay élections libres transparentes et démocratiques nga xam ne du am benn jafe-jafe sénégalais le lendemain nous vaquer à leurs occupations nous continuer de tourner ces mm, mm, mm, émission d'inviter les gens ñi voir sur la nouvelle configuration du du Sénégal avec le nouveau président élu alors euh, c'est clair